des points d'accord très importants qui vont constituer le du du du du du processus euh, électoral et démocratique euh, vers mais ñu am des points de désaccord euh, le cumul euh, de la fonction de chef de l'État et chef de parti loolu moom Macky Sall ci masa daf ko masa bañ même pendant les assises euh, nationales l'arrêt des poursuites et la libération des détenus la déchéance électorale comme peine euh, comme peine complémentaire alors surtout cette question bon président cumule euh, loolu moom ça peut dépendre euh, de la volonté de celui qui va être élu mais est-ce que en refusant euh, ces accords-là l'arrêt des poursuites et la libération des détenus la déchéance électorale comme peine complémentaire est-ce que bàyyi ñu tey ba tey des des des des braises yoo xam ne mën na enflammer waat la situation à tout moment. man man j'avoue quand man personnellement lu nga xamante ni moom laa gëm mooy di nekk que mën nañu def des efforts de part et d'autre. de part et d'autre non je m'explique mën nañu def des efforts de part et d'autre ba ñi nga xamante ni par exemple euh, c'est des c'est des c'est des déclarations sur Facebook c'est des choses yi nga xamante ni xëj na wute na ak ñi nga xamante ni dañoo jóg wàcc sur le terrain wala ñu commandité wala ñu commandé wala ñu jël parce que aussi l'enquête c'est ce qui s'est passé là mais mënoo jël rek xam nga li ñu naan les bons les les les les bons payent pour les mauvais parfois c'est-à-dire que man jàpp naa ne ñi nga xamante ni ay déclaration Facebook par exemple man tey y a quelqu'un je demande vraiment je je serais j'aurais vraiment souhaité qu'on le libère muy Bassirou Diomaye Faye par exemple ouais. je je le demande quoi parce que exemple laa joxe vous le vous le demandez le souhaitez parce que da nga jàpp ne euh, li mu def jarul jàpp. parce que da nga jàpp ne son séjour est injuste ou quoi. non dama wax waxuma injuste Maïmouna waxuma li ñu ko def jaru ko jàppe mais dama wax ni pour avata benn yoon laa mu ca gisante ak moom mais dama jàpp dama wax ni ñaan naa bu ñu ko mënee may liberté provisoire ñu may ko ko. bu ma waxee ñaan waxuma ni je me solidarise de lui de waxuma ni deful dara de mais dama wax ni bu dee mën naa nekk. cas boobu moo nekk sama xel te dafa am bi may ñëw kenn ku ma ci interpellé ñu waxtaan ci moom moo tax mais dama wax ni il y des gens qui ont fait des choses gis nga li xew Sénégal si on le banalise après ñu ne non vraiment kenn deful dara di nañ dem il y aura c'est très grave mais dama wax ni une fois encore s'il y a des gens yi nga xamante ni euh, la main peut être levée euh, en fait le, le, la pression peut être levée sur eux te du yàq dara mën dans le cadre de la de de la de la, de la mën nañ ko def mais décrispation kenn mënu ko def te tegoo mbir mi ci dëgg tegoo mbir mi ci yoon. donc mais xam nga <laughs> xam nga Malick euh, le cas Bassirou Diomaye euh, beaucoup de gens. est-ce que xam nga est-ce que xam nga est-ce que part j'ai à c'est une question de déclaration de truc là je n'ai pas autre information là-dessus. voilà le cas Bassirou Diomaye ne fait pas la détention de Bassirou Diomaye ne fait pas l'unanimité bari na sax ñoo xam ne ils sont du côté du pouvoir jàpp nañu ne il ne doit pas être en prison ben euh, Fadilou Keïta. par exemple par exemple Fadilou par exemple par exemple Fadilou par exemple Fadilou Fadilou Fadilou par exemple Fadilou je pense que je pense que globalement Maïmouna bugguma Cheikh Omar Diagne Karim Xrum Xax dañ def conférence de presse def des déclarations ñu ñëw ñu ñëw ñu ñëw jàppale il n'y a pas que Bassirou Diomaye il y a et il y a d'autres personnes mhm. non dama ni mënuñu nekk di individualiser noonu bu yàggee la liste cinq cent personnes on va parler mooy mooy pour ñu ñu xam non dama ni la ci ñi ñu xam xëj na li ñu def ku ci nekk li ñu def wuute na ak li keneen def mais dama wax ni dans le cadre de la décrispation mais décrispation une fois encore c'est sous le c'est sous le sceau de l'état de droit du respect de la justice et du respect des institutions de ce pays c'est-à-dire que aujourd'hui dafa am li nga xamante ni waratu la mën a am ci dëkk bi lépp lu nga xamante ni nit nit bu tooñee li mu bëgg daf koy ñaan mais ci njëkk nag